Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce mardi 9 juillet 2024 suñ fa jógee dañuy dem section de recherche bu Colobane ginnaaw bi nga chamboulement ci gendarme bi le colonel commandant Alexandre Diouf moom daal jël na reenu lii nga section de recherche bu gendarmerie Colobane ginnaaw moom mi di commandant Alexandre Diouf moom daal jamono ji moo ci section de recherche bu gendarmerie bu Colobane ginnaaw précédemment gi nga xamante ni ci compagnie gendarmerie bu Ziguinchor ainsi que mon nekkoon ancien chef bu nga xamantene moy section de recherche bu Colobane ak lieutenant colonel Bidi di Arouna désormais ñom dal ñoy commandé li nga xamantene moy légion de la gendarmerie de Thiès nañu jàpp dal jamono ji li di section de recherche de gendarmerie bu Sans changé nañu li nga xamantene moy sen chef ginnaw lol qui ki di commandant Alexandre Diouf di na jël li nga xamantene moy reine yi ci section de recherche bu <laughs> Hey.